ñu ngi am mbégte dalal tey euh, Modou euh, Fada mooy directeur général Sonacos SA nekk itam président LDR Yessal euh, dalal ak jàmm ñu ngi lay nuyu. Fatou ñu ngi lay fay ñu ngi nuyu mbokk auditeurs yi ñuy déglu yëpp te ñaan yàlla defal leen jàmm. alors dañuy tàmbalee li lëmbee Sénégal tey euh, assemblée nationale également muy euh, trafic passeport diplomatique ñu tudd ci ay député yow nekkoon nga député nekkoon nga itam président groupe parlementaire mbir mi noo ko déggee ak euh, lan nga jàpp ni moom la ci assemblée waroon a am comme taxawaay ak également justice ndax wax nañu ne yëf yi dafa xaw a yéex député yi ba tey ñu ngi dox seen yitte te xëy na am na yenn mesures yoo xam ne waroon nañu ko mun a jël ay mesures conservatoires. képp kuy républicain képp ku bëgg réew mi bëgg askan bi euh, yaakaar naa boo ko déggee am nga ci lu la naqadi ndax quand même assemblée nationale du kum neex rek nga dem fa. Euh, ña fay dem dañu nekk ñu nga xam ne ay Sénégal dañ leen wóolu euh, tànn leen ñu nekk fa toog fa toogaayu ndaw réew mi alors kuréel bu mel noonu nag lu mel noonu bu ñu ko fa tuddee. Eh, wax dëgg yàlla dina dina metti ñu bari parce que dafa nekk gàkk bu nga xam ne gàkk-gàkk eh, bu bu doy waar la waaye nag eh, yaakaar naa li ma ci am information rek yow loolu nga ci am lu ñuy dégg la ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiiñ man dégguma leen ñu wax ba xam mbir mi nu mu tëddee ak nu mu nu mu nu mu demee donc am lu nga xam ne man duma ci mën a sori parce que nit yi tamit dafay dafay njaamure mais li ma xam daal mooy képp ku nga xam ne da nga euh, sol sa mbubb wax ne dama bëgg yore baatu askan bi ah bu la askan bi joxee baatam euh, war nga ko sàmmal bu baax a baax war nga am daal taxawaay bu nga xam ne taxawaay bu mucc ayib la euh, bu nga xam ne kenn du mën a am lu muy teg sa der te muy dëkk teg der sax mënul ñàkk parce que politique la ñuy def ci réew mu mel ne suñu réew la ñu nekk waaye nga góor góorgóorlu ba nga xam ne buñ la buñ la tegee bu tegee der sa euh, buñ tegee dara sa der aussi buñ nee bu ci cëppaandaw ja euh, duñu ko duñu ko gis léegi nag assemblée nationale gis naa ñuy wax assemblée nationale mënul lever immunité parlementaire benn député te fekk yoon euh, bindul lettre jébbal ko président assemblée nationale parce que loolu rek moom mooy li nga xam ne moo mën a xew assemblée nationale commencé bouger pour wax ne dafay lever immunité lever lever immunité parlementaire benn benn député mais tant que yoon mi nga xam ne mu ngi saytu mbir mi euh, bindagu leen jaarle ko ci ministre bi yore wàllu justice président assemblée nationale jot bataaxal bi assemblée nationale mënagul bouger maintenant euh, xam naa ne président assemblée nationale ñàkkul ne euh, mu ngi def ay gëstu boppam ñàkkul ne toog na ak député yi waxtaan na ak ñoom euh, am na ci information xañ na yu mu amal boppam wala yuñ ko ci yuñ ko ci yuñ ko ci jox euh, bon li ci des si tamit euh, ñoom am nañuy kuréel commission information commission enquête yooyu yëpp mën nañ ko taxawal pour gën a gëstu gën a xootal mais foofu lañ ci mën a mun a yamagum pour le moment parce que tamit mbir la mu nga xam ne wax nañ ko jëmale ko ci ay kilifa jëmale ko ci ay ay euh, ay ay ay nit bon nit ñooñu comme ni ma ko waxee sànq dégguñu leen ñu ñu yee ci yàbbi am lu nga xam ne donc nañu bàyyi yoon moom mu def enquête am def ay gëstoom ba pare ñu soog a xam na la ci assemblée nationale war tax. jàppoon ne yoon tam dafa xaw a yéex ci mbir mi par rapport ak yeneen dossier non non man man jàpp ma ne vous savez euh, li ñu wax naan euh, le temps de la justice ne pas le temps de la presse ou même parfois le temps de la politique. yoon dafa am ay banqaas am ay kuréel am nu muy doxale parce que tamit euh, bala ngay yëkkati tuuma di ko teg ci ku nga xam ne am na njaboot ku nga xam ne kilifa la ah na fekk booba nga euh, saytu ko bu baax a baax a baax donc man euh, bokkuma ci ñi nga xam ne dañ naan nañ gaaw rek tilimal deru nit nañu gaaw rek def lii bon bàyyi leen yoon mu def liggéeyam ci tànk bi nga xam ne moom la moom la soxla fan yi ñu génn nga jugee tournée yàggul dara tournée bi yóbbu la ci ay gox yu bari ci Sénégal lan moo doonoon euh, jubluwaay bi. waa dañu def conférence des leaders président Macky Sall jiite conférence des leaders boobu man ma bokkoon ci ñu wax ne dañu war a dañu war a wax parti ñu jël seeni ñu def ay tournée waxtaan ak seeni militants waxtaan ak seeni responsable parce que loolu mooy li war a am. kenn ku nekk si ñun am nga ñu nga xam ne yow lañuy déglu yow lañu ñu faral euh, te tamit xëy na soo waxee ñoom daañu la dégg alors ñun loolu moo taxoon ñu jël def benn tournée mu nga xam ne yóbbu nañu Louga yóbbu ñu Njaareem yóbbu ñu Kaolack yóbbu ñu Kaffrine yóbbu ñu Tambacounda yóbbu ñu Vélingara yóbbu ñu Kolda yóbbu ñu Ziguinchor alors bi ñu demee tamit fu ñu dem fu nekk dañuy wax suñu responsable yi ñu invité. waa Benno Bokk Yaakaar nañ invité waa majorité présidentielle bu ko defee ñu ñëw fekk leen fa bu ñëwee tamit discours bi ñu leen di tenir mooy discours booloo leen bokk leen ndey bokk leen bàyyi de leen yëkkateendoo de leen tegandoo waxtaan leen seen biir ba ngeen am consensus ba am ay liste yu nga xam ne liste yu méngoog jamono la am ngi liste yu nga xam ne euh, population yi daal ci gis seen bopp xam ne liste yi mën nañoo défendre seen i seen i seen i seen i yaakaar naa ne bu ko ku nekk defee wax yi tamit wax bu leer ne ñun benn bokk yaakaar la bokk te suñu militant nañu dem ñu jege ci waa benn bokk yaakaar ñu waxtaan ak ñoom parce que beneen pexe amul lu dul nekk si biir benn bokk yaakaar kon euh, yaakaar naa bu ñëpp defee noonu xërtal seen militant ci ci loolu bon euh, du ñàkk daañu am quelques euh, nit yu frustré wu yu def neneen mais ñi ëpp ci troupe ji daañ mën a toog ci biir coalition bi biir benn bokk yaakaar pour ñu mën a jox ndam président Macky parce que mbir aussi boo ci nekkee da nga nekk mbaa bañ caa nekk rek man fu ma nekk moom damay bëgg foofu am ndam damay bëgg liggéey ba liggéey ba am solo man noonu laay noonu laay liggéey moo tax ma ñaax bu baax samay samay ñoñ ñi nekk ci biir mi ne leen waxtaan leen jubo leen bokk leen ndey bokk leen bàyyi ngeen bootu ci kaw ci ginnaaw Benno Bokk Yaakaar pour que ñu am ndam ci élection locale yi ñu jox waaye am na ñuy séentu tasaaroo ndax euh, yenn gox yu mel ni Ndakaaru ak euh, Kaffrine ak feneen ak feneen xëccoo gi tàmbali naa fës euh, surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition bi te nekk ci parti yu wuute ndax yaakaaroon ni jafe-jafe dina am ci investiture yi. waaw xam nga jamono bi ñu tollu jamonoy déclaration candidature la jamonoy wane sa bëgg-bëgg c'est normal. am na ñeneen ñoo xam ne jéggi nañ foofu ñoom dëggal nañu ne dañuy dem. mais non mais xam nga ba léegi tant que demuloo fay caution bu sa coalition bopp. am récépissé boo waaw am récépissé boo demee moom wax wax la rek ba léegi candidat laa rek ba léegi loolu nag euh, nit ku nekk sañ na ko. Hmm. nit ku bëgg sa gox bëgg sa dëkk sañ nga wax ne man bëgg naa sañ nga wax ne ki fi nekk euh, jàmbaar la man maa ko gën a nekk jàmbaar. Hmm. man maa ko dàq liggéey loolu ku nekk sañ na ko wax te pour le moment loolu rek fiy dégg. candidat à la candidature gars yi daal bu ñuy tànn man bëgg naa ñu tànn ma hmm. kooku nag. ku bokk ci LDR Yeesal mën nga ko wax ku bokk ci APR mën nga ko wax ku bokk ci AFP mën nga ko wax ku bokk ci parti socialiste mën nga ko wax ku bokk feneen ci nekk ci biir mouvance bi mën nga koo wax waaye nag bu kenn fàtte ne coalition dafa am kilifa kilifa gi tey loolu la yàlla dogal mooy président Macky Sall comme président Macky Sall nag mooy kilifa gi ku nekk mën naa feeñal bëgg-bëggam waaye jamono dana jot na président Macky Sall dafa dana wax ne diw ak diw yéen ñëpp jàmbaar ngeen yéen ñëpp ñu baax ngeen yéen ñëpp bëgg ngeen waaye nag diw mi laa tànn mais ngallawaay ka ñu tànnul na am ngoru bootu ca ginnaaw ka ñu tànn jàppale ko ba kooku am ndam su ko defee suba moom itamit bu leneen ñëwee ñu tànn ko kooku itamit jàppale ko. ñun yaakaar naa ne ñi bokk ci ñi yore nguur gi bokk ci Benno Bokk Yaakaar war ñu am yooyu parce que ku ci nekkul maire wala nekkoo président département mais au conseil ngi fii di ñëw ñu war koo yeesalaat conseil économique social ngi fi gouvernement ngi fi euh, yaa ngi fi yeneen poste ñu ngi fi donc je crois que euh, li ma leen di wax souvent rek gis nga buuxante gis nga jant njolloor jarul buuxante kenn ku nekk mën a taxaw fi mu taxaw di seen jant bi di di di di seen jant bi donc man aw ma benn euh, tiitaange ne euh, coow loolu ngay dégg ci dëkk dëkk ci dëkk yi dina dem ba jur tasaaro man aw ma ci yaakaar parce que bis bu arbitre bi sifflé rek récréation bi jeex mm. d'accord loolu yàggatul yow yaa nekk ci bopp présidence conseil départemental bu Kébémer da ngay demaat samp sa nënd am da ngay déglu yow it président. damaa nekk ci kuréel ah bu fekkoonte ne dama nekk ci kuréel muy benn bokk yaakaar donc man mun ma tëb tëb rek ne damay samp sama sama ndënd euh, wala du ma samp sama ndënd euh, damay jébbal yépp ki nga xam ne mooy kilifa euh, coalition bi muy président Macky Sall. di ko di ko di ko di ko déglu. du parce que tamit wekk ñi nga àndal yaakaar naa bokk na ci nga bañ a nga bañ a jiitu paaka ci mbaram. waaye bëgg nga ko jiitewaat. mais ma maa ko nekkoon maa nekkoon président conseil départemental depuis deux 2014 euh, booba ci coalition Soppi laa nekkoon léegi maa ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar bon. damay bàyyi coalition benn bokk yaakaar ñu saytu mbir moomu rek lu ñu ci dogal ma xam ne loolu lañ dogal. ñu wax ci mbirum Sonacos ba ñu la tabbee nga wax ni da nga ko bëgg a jubbantiwaat taxawalaat ka liggéey bi soobu ngeen ci tey fu ngeen ci toll. sant yàlla sant yàlla yaakaar naa Sonacos nekkul kër gu yomb ah, liggéey bi nekkul liggéey bu yomb mais ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu ñu ngi ci def suñu kéemtalaay kattan président Macky Sall itam mu ngi ciy jàppale bu baax. ndax ay la yéwén bi ñuy jël kër gi fekkoon nañ fi déficitu juróom-ñaari milliards euh, exercice deux mille dix neuf bi euh, bi ñu ko saytoo euh, combler nañ déficit boobu ba am taxawaayu trois cent millions bénéfice exercice boobu deux mille vingt bi nga xam ne moom la war a saytu octobre bi ñu jëm yi tamit lu mu gàtt gàtt daañu am milliard ci ci bénéfice donc yaakaar naa kër gi mën nañu wax ne jubbantiwaat nañ ko. léegi nag mu des ñu relancer ko maanaam kër gi euh, jëmaat ca kaw jëmaat ca kanam loolu nag dafa laaj yeneen jumtukaay yu nga xam ne président Macky Sall joxe na ndigal euh, monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo ak monsieur le ministre euh, professeur Moussa Baldé pour que ñoom ñi nga xam ne ki moo yore tutelle financière ki yore tutelle technique pour que ñoom seen bopp ñu jàppale Sonacos pour que Sonacos mën a relancer. gën a mën a relancer activité am gën a mën a defaraat ay jumtukaayam muy ay équipement am euh, parce que loolu mooy tax lépp lu mu am ci gerte mu mën ko def dëwlin ak ràkkal te yaakaar naa lool mooy suñu cœur de métier te ci loolu tamit la ñu bëgg a di ñaan yàlla mu may ñu nawetu jàmm euh, nawet bi àgg ci jàmm te lu ci waay bay yàlla na ko muurloo euh, buñ ci àggee tamit baykat yi ñu jox leen njëg gu baax a baax gu nga xam ne daañu ci mën a faj seen i seen i seen i soxla mais ñi nga xam ne ñooy industriel yi tamit ñu mën a jënd gerte gi gerte bu baree bari bari pour mën a defaraat dëwlin euh, ak euh, ràkkal ni ma ko waxee léegi euh, jëbal ko consommateurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmmkat yi mm-hmm. ñu jeexal ak euh, mbas mi nga xam ni moo ne ci Sénégal euh, ñetteelu vague bi daanaka mi ngi jeex waaye am na ñuy euh, ragal ñeenteel ñëw nekkoon nga ministre de la santé tey bu amoon looy digle ngir ñeenteelu vague bu dee dina am mu bañ a xëy na mel ni yeneen yi fi weesu ci ngaañte yi mu jur. bon ñeenteelu vague mën na am mais man jàpp ma ni dina mën a mel comme ne yu yu yu mujj yi parce que quand diggante bi nag ñàkku yi ñàkku yi ñëw nañu donc man tey bu ma amoon lenn lu nga xam ne. dama ci insister mooy ñàkku yi euh, na nit ñi dem ñàkku ji parce que man gisuma fi leneen lu tane loolu gisuma fi leneen lu gën loolu nañu dem ñàkku ji euh, donc na na na liggéey bi nga xam ne président Macky Sall tàmbali na ko ak euh, ministère de la santé muy wuti ñàkk bitim réew di ko indi ci réew mi liggéey boobu na continuer ba nga xam ne képp ku ñu war a ñàkk ci biir réew mi dina nañ la ñàkk bañ mën am immunité collective parce que am na lim bu nga xam ne bu ñu ñàkkoo rek mën nañ jàpp ne immunité collective am na ci am na ci dëkk bi te bu boobaa moom yëf yi bu amee tam ay benn benn lay nekk yu nga xam ne dana yomba dana yomba régler vraiment ñoo ngi ndokkeel bu baax personnel de santé bi parce que nag euh, suñu système de santé système de santé la bu nga xam ne bu dëgër la bu taxaw la te wax dëgg yàlla nit yi nit ñi ko yor c'est vrai que président Macky Sall jàpp na ci Euh, jàppale na leen mais yaakaar naa personnel de santé bi tamit wane nañu njàmbaarte wante wane wane wane wane taxawaay bu nga xam ne ñun Sénégal yi yëpp war nañ leen a jaajëfal ni fi ñi nga xam ne ñoom ñoo ci am ay mbokk yu ñun ñëpp d'ailleurs man gisuma yaakaar naa benn Sénégalais bu nga xam ne amuloo mbokk bu nga xam ne corona bi yóbbu na la man gisuma ko ñun ñëpp daanaka am nañuy mbokk walay dëkkandoo walay xarit yu nga xam ne xam nañ leen corona bi yóbbu leen mais nañu ko jàppe ne loolu dafa waroon a dafa waroon a am mais teewul nag wax dëgg yàlla ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñooy personnel santé parce que bu loolu nag seen taxawaay mais làmbaay ba noonu naa gën a gën a ñaaw. yan leçon nga jàpp ne war nañu koo jëlee ci mbas mi tey ko xëy na mu jariñ ñëw ngir li ci kanam. mais xam nga xam nga li may wax rek mooy euh, gis nga fagaru dafa gën faju maanaam euh, lépp lu mën di xew ci wàllu feebar. Euh, faj ko baax na mais fagaru dafa gën. prévention muy prévention. te comme ni ñu daan wax nañu masque wu nañu di raxasu nañuy jël ay fàgguteef yooyu dafa nekk lu nga xam ne valable na ci mbirum mbas mi muy coronavirus mais dafa valable ci presque bépp feebar. feebar yu baree baree bare bare bare bëri ak cet cet ci sa yaram cet ci say loxo cet ci sa kër cet ci sa mbedd cet ci sa dëkkuwaay déjà bu ñu ko réglé woon rek mën na ma wax ne quatre-vingt pour cent feebar yi yàlla mën nañu ci musal donc ndénkaani bi loolu rek la la prévention dafa gën euh, li nga xam ne mooy mooy mooy mooy faju jërëjëf Modou Diagne Fada ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM yaa jiite euh, parti bi di LDR Yeesal ak euh, Sonacos SA. jërëjëf euh, Fatou maa lay gërëm maa ngi sant yow tamit ci laaj yi ak dalal gi ma dalal ci matinal bi di ñaanal ñi ñu déglul ñëpp ñu yendoo ak jàmm te yàlla dafa leen journée bu nga xam ne journée bu neex la ak weer wu nga xam ne weeru neex la ak at mu nga xam ne at mu mu neex la